mbokk yi wa rahmatulahi taala wa barakaatu gannaaw bañ leen nuyoo te di leen ziara ñoo ngi leen di baalu àq te di leen ko baal di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murid di ñaan sunu borom subhanahu wa taala guddal fanam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal maam ji baax ji Serigne Touba yàlla may ko ci lu koy njottam mbokk ñoo ngi fii tey si Daaru Xudoos fi nga xam ne mooy Liwaanul Amdi ñu gën koo xam ci mbaarum Daaru fan ci weeru tam xarit ñu doon fi amal benn ziyaara boo xam ne dañ koy jagleel Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xudoos dinañ ànd ak euh, ñi nga xam ne mooy suñu mbokki taaliba yi diwaanul muridina ak képp koo xam ne moom aju ci kër gi dinañ ànd ak moom euh, fu seenee bokk ak ñoom ziar bi Cheikh Moustapha santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nañ nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay luum nañ ci Moustapha noo ngi jotaayoo tey ak yow fii jotaay bu jafe jotaay bu foor jotaay bu sell macha allah kaar ñii nga jàkkaar lool say soppe lañu baat boobu léeg fi tax a ñëw nii di soppe yi Cheikh Hamdi Moustapha ka defaral sëñ Touba Touba taawam bu tedd ba di soppe yi way mu tedd ba Cheikhuna Khadimil Moustapha ki sancoon pàkk bii di soppe yi sangam ba sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ñëpp julli ci moom kon jotaayub soppe yaa ngi nii majlisul ahbab ahbabul Mustafa kama xaala cheikh diini ya xubbullahi wa rasuli wa xubbu xisbihi wa niil usuli diini ya xubbullahi wal mushafai mustaxniyan bi sirrihi an midfai diini ya tawxidul ilahi wa sana ala allasi bihi kafaani wa sana wax ne allahuma ya quddus salli wa sallim wa barik ala man nawaytu an abudaka bi xidmatihi li wajhika alkarimi fii tuuba wa fii daari salaami wa fii daari minani wa fii daari qudduusi dal di jël fii daari qudduusi ji def ca xasida dal di xatmu way wa wajal tilka duyura mahrusatan wa mahsumatan wa mubarakatan nag ma defal kër yooyu muy kër yu ñu sàmm yu ñu barkeel yu ñu aar yu ñu musal yu ñu barkeel wa si ani xaadimiha nag ma fayal ñoom fay liggéeyal bil bilaa i tabax béytee ngi daara kaami la nga ne sëñ Bamba wax lii wa si ani xaadimiha bil binaa i wa naqali am tiaati nag ma leen fayal xayran yi woo xam ne yax bituhum leen ñee bii cawum xayruhum ku dul ñoom fil xaali wal maali tey ak xasida ga di jàll rek ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ki yaakaar moo ko fàggu fii kon loolee yàlla nañ ca teg suñu loxo te muurloo ko sëriñ bi nga yàgg fi te wér yal na suñu boroom dimbalee nga yàgg fi te wér nu yàgg sa gannaaw te wér. mbooloo yi fi teew nag ci ay kuréel lañu tënku di kuréel yoo xam ne xubbul Moustapha moo leen tënk di la siyaare mën na ñu ca jiitu bu ñu wax kuréel yi diiwaanul muridiina sëñ Ousmane Mbakke ne ca bopp ba ittihaadu atbaayil lambaale wilaya Touba yëpp jamaahatu ahibbaay Cheikhil Khadim li nusrati diinil qawim Serigne Diop Makhtar ñëw na ànd ak i hadiyaam ak mboolem waa ahibbaayil Khadim fédération Islaahu Daarayni sëñ Cheikh Lo Ngogui Munawwir Sudur kër sëñ Mahmoudan Majmahun Nurayni kër sëñ Aliyu Mawaaridul Asfiyaay kër sëñ Ahmadou ak Tuhfatul Mutadarriina as-Saalikiina kër sëñ Saalihu Mbàkke Moustapha ahlu sidqi fi l mahabati wal walaa'i li Cheikh il Xadim kër sëñ Ibrahima Hafsatu ñoom ñëpp a teew al muhsinina wal muhsinat kër sëñ Xaadim Moustapha taawun fi sabilillahi daare sëriñ Ahmadul Muxtaar al muxlisina wal muxlisat waa kër sëriñ Fallu Mbàkke Moustapha am naa u suyuux muy doomi seex si seeni soppe yi nga xam ne ñoo takkaat seenu ndigg di liggéey ngir loolu yi tax ñoo ñi ma tudd ñu teew fi ñu dolliwaat ca kuréel yu aji ci kër soxna may munatu Mbàkke Moustapha yàlla na fi yàgg loolu te soxna Daba Fall mar yëmm mooy jëwriñ ja teew na ci réunion yi doon daje yëpp moog soxna maam Ami Guèye mi jëmmi soxna may di loxoom ak soxna maam Coro Mbàkke ak soxna Daba Diop ak soxna Fat Samb soxna Awa sambu soxna Mati Kan ak ñeneen ñeneen euh, ku lim matal doon présenté mbooloo mi fi teew rek ki xamal ne teew nañ ci pàkk bu sell bii di tëbbliku di sakku ak tëbbliku ci leer yi ci pàkk bi sëñ Tuubaa moo bindal boppam mag nag bu bindee lam bind ñor na ko kon pàkk bi xam nañ xam nañ li fi sëñ bi bind. ak fi def mbooloo mi fi teew nu ñaan nu loo muurum pàkk bi ku fi toog ku ne tey jii ngoonu Achoura di màggal di fàttaliku Cheikh Moustapha gan ak jamonoom ga ak feeñu pàkk Touba di fàttaliku Daaru Salaam yow ma moo doon ganam ga booba laa miraa fekkoon na bàyyam génn yi listixaar yi ngir bëgg ñëw Touba mahal abraari bis bam gënee adduna gis na booba leerug rasulullahi sarba Touba noo ngi tëbbali ko ci leerug rasulullahi googe ndax dañ doon sopp Cheikh Moustapha tabbi ci biir leeram gi di fii ndekete leeram ga daa lëkkaloo ak leerug Cheikh Ahmadul Khadim muy genn leer ñi fii ci biir ndekete mooy leerug Sayyiduna Muhammad moo tax ñu fi teew ñëpp soppay Sayyiduna Muhammad soppay Cheikh Ahmadul Khadim soppay Cheikh Moustapha soppay gaa yu baax yëpp fii kulli zamaani wa makaanin ñoo teew fii di la siyaare di la sargal di la ndokkeel di la ñaanal yàgg fi te te loo am ci fàtte yal na nga am ba doyal yal na nga dund ba doyal ci barke pàkk bi ak borom pàkk bi ak li pàkk bi làmboo yal na la yàlla sàmm aar la nga dund ba doyal soppi yëpp toppi sa gannaaw taalibe yi loolu daal mooy li ñuy sàkku nu mucc nag ci mbas mi ci darajee pàkk bi mucc ci jàngoro yeeg bakkaar yeeg bekkoor yeeg bagaar yeeg lépp luy musiba lor noo ngi sakku ci dara yi pàkk bi la mu làmboog ña ko moom ku fi teew mucc yàgg wir gudd fan am barke na ko sëñ bay jaxate waxe woon mucc ak njëriñ gudd fan nag wir xaalis ngam lu ci ne yàlla nuy dalam gim néegam ci dara yi borom pàkk bi daari kaamil jaa nga ne bu ci kenn ëppale na fexe ba CRC na ci seen seen ñaq dem ma nga ne am ciment andil ku am fer indil feer bi moom xeer bi moom na mat na sëkk xeer ba doy na feer baa nga nee ciment lañ soxla ak feer dañ ko bëgg a xadd muy néeg bi gën a rafet ci àdduna ñeel alxuraan fii ci kër sëñ Touba néeg sëñ Touba ngi nii nekk alxuraan a ngi nii alxuraan lu sëñ lu mas a rafet sëñ Touba la ko jagleel nu ngi leen ci soññi kon loolu moo doon waxtaan wi nu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ asalaamualeykum wa rahmatullah yéen mbooloo mi teew mi ngi leen di nuyu li gën a bari te di leen sant seen taxawaay waxtu wu ne waxtu wu ñu wootee lu jëm ci sëriñ bi rek mu gis seen taxawaay ak seen pësteef nee na mi ngi leen di sant ci loolu di leen ci gërëm. nee na mu ngi ñaan ngeen sax ci. nee na gannaaw loolu mi ngi leen di ndokkeel ci at mu yees mi. mu ne mi ngi sant suñu boroom mi def nu fekke ko. fekke ko ci jàmm ak ku tal. nee na mi ngi ñaan at mii muy atum xéewal. di atum mbégte mu ne li balaa bii fi xew muy tawat ji fi xew sun borom jëlee ko fi. mbooloo mi fi teew yëpp it tudd leen. nee na yéen ñëpp leen di sant di leen gërëm. mooy daan ñi daa mu ne dafa gis ne at mu ne. Pastef bi day yokku. mais nag ñii fi teew rek yëg na ne yokku na bu baax a baax a baax nee na mi ngi ñaan loolu yàgg te sax nga yàgg te sax. mbooloo yi bëri daayira yi bëri na tur yi euh, lépp benn mu ne mbooloo yi ak daayira yi yi bëri na lool waaye lépp benn rek la benn rek la tur yu bëri yoo jënd jëmm la ndax nee na loolu lépp suñ tudd lépp ci alalu seex mu njabootu seex mu sabaare seex mu soxla jëm ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne. moo sos yoon wi nee na xam ne ne yéen a ngi ci te yéen a ngi ci woon naka jëkk nee na way jur yi ñoo nu ci jur yar nu ci nu fonk ko nañ ko digale woon nee na loolu ci sax yal nañ ci sax. nee na nag mi ngi leen di digal. lim leen daa digal. nee na yéen a ngi ci waaye ngeen gën ko feddali. te mooy jaamu yàlla. sàmmonteeg ndigal yi. sàmmonteeg ndigalam yi. moytu ay tereem. nee na loolu yi mooy li yàlla digle yonent bi digle ko. Serigne Touba it génnul lu baax li lu baax lépp muy Serigne Touba. kon nee na nan góorgóorlu ci loolu yi lépp lu baax nee na loolu yi dañ la digal boppam ci la ne nee na mi ngi leen koy digal nee na xam na ni yéen a ngi ci yoon waaye ngeen gën koo fonk téye ko bu dëgër bañ koo fàtte benn yoon sëriñ bi ne mi ngi leen di sant di leen gërëm nee na mi ngi feddliwaat euh, confiance am wóolu téem ak téyam ci yéen kóllëreem feddali kóllëreem ak wóoruteem ak yaakaaram mi ngi koy feddali ci yéen. ngeen taxawoo kër gi. neena na it kër gi. kër na lii lépp kër gi rek a tax. sagal kër gi. sagal kër gi. téye ko. téye xam ne seen kër la. xam ne mi ngi ñaan ngeen gën cee góorgóorlu de. gën koo sàmm. gën koo sàmm. te xam ne kër gi yéen a ko moom yéenay waa kër gi de. nee na kër gi fu amee fi ñu ci dëkk yéen a ci dëkk yéen ko moom kenn du ci dëkk kon yéen a ko moom yéen ñii waa kër gi. nee na xam na ni yéen a ngi toppatoo seen alal seen yëf. mu ne kon loolu mi ngi leen di yéene di leen ñaanal cey li ci ne ngeen gën cee yàgg gën cee dolli ko positif nee na ngeen sax ci ba faw amiin mi ngi leen di sant leen gërëm jër geen jëf alhamdulilahi rabbi na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi lool te ku loo wasra boo dex gaa ngi fengat te dootu ndaay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa Mustafa